keneen ku ñu faj dinañ la rey tu vas former des ingénieurs yoo xam ne nii ñooy defar tali bi bu boobaa léppay nermeelu ku fa jaar daal di dee te gis nañ ko tous les événements yi nga xam ne daf fi am muy màggal muy gàmm muy leneen ak leneen les accidents de baree bari nit ñi c'est pas normal c'est parce que tali tu ci tali 4 mètres la ñu que les véhicules di ci double di forcément forcément il y aura des accidents forcément les gens vont mourir et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays les gens meurent ñëpp di pas ci tali yi bët ki ci màggalu Porokhane gis nañu ni 11 personnes ci benn accident dee nañu te kenn waxu ci gouvernement bi n'a pris aucune mesure pour régler ces problèmes-là de ce fait aujourd'hui génn Macky Sall ci dëkk bi farata la ma ne nga nekk parti réew bi nga nekk beneen parti moom moo ci yem nous devons nous lever et combattre Macky Sall nous ñu mën Nous nekk dañ ko war a xeex Nous devons di seetaan lii ko rek c'est parce que yow ak Macky Sall a responsabilité de situation donc il nous faut nous mobiliser les intellectuels les femmes les jeunes les anciens tout le monde doit se mobiliser. préparer la route à Macky Sall kenn waratu seetaan lii ndaxte buñ ko seetaanee suñu dëkk bi mooy nërmeel li ci gën a graaw mooy aujourd'hui suñu doom yi amatuñu sax classe yu ñu jàngee c'est le ministère de l'éducation qui a il y a 6369 abris provisoires maanaam ay kirti mbing la ñuy defar dugal ci xale yi pour ñu mën a jàng ay kirti te xale yi bu ñu nekkee ci biir jaan yi dañ leen fekk leneen ak leneen di leen fa fekk te lu ngeen te lu ngeen xamul mooy classe yooyu nga xam ni kesenko maanaam so demee ci àll bi benn classe benn maître day yor CI yor CP yor 3 à 4 classes ci benn néeg ci benn abri provisoire maanaam mi ngi mel ni nañ daan jàngalee sunu doom yi ci daara yi nga ni bi day toog euh, ñépp toog ku nekk daal di am ku lay saal léegi lay demee ci àll bi est ce que loolu ne xam-xam man na ci génn xam-xam ñu ci génn c'est pourquoi euh, ñooñu ñooy dem continuer dem lycée dem secondaire dem université bu ñu génnee duñ xam dara duñu xam dara nos écoles produit de très mauvais diplômés diplômés yi ñuy jox dara baaxu ci donc suñu système éducatif bi ci boppam moom lañu war a seetaat buñ ko seetaatul ak secteur bu ñu mën indi du dem même pétrole bi ñuy wax su fekkee ni formé wuñu xale yi ba ñu mën ko jël en charge donc bon pétrole bi nga xam ni ne nañu gis nañ ko Sénégal te effectivement gis nañ ko gis nañ fi gaz gis nañ fi zircon gis nañ fi marbre gis nañ fi or maanaam loolu lépp mi ngi ci suufu Sénégal te am na yoo xam ne nii commencé nañ ko di ko génn muy zircon bi gis ngeen xaalis bi muy génn dafa baree baree bari ba nga xam ni dañu defar raay wa dañoo defar raay bu jugee jogo dem directement au niveau du port pour ñu ko fay mën a jënd donc xaalis boobu bari na contrairement à ce que dit le ministre le ministre dit que le zircon n'est pas très cher par rapport au diamant et autres il raconte des histoires et le Sénégal est le troisième pays exportateur de zircon au monde donc lolo, dafa nekk mbir tax ci Sénégal un pays développé au Sénégal mais malheureusement il y a une famille Macky Sall et la famille de Mariam Faye et leurs amis qui ont mis un emploi

li ci gën a mooy lan dañoo jël des financements de la France des financements de l'extérieur di tabax ce qu'on la nouvelle ville de Diamniadio xam ngeen nouvelle ville de Diamniadio ñaata lay ñaata lañ koy defaree deux cent milliards de dollars loolu ko traduire ko en CFA sax lu jafe la. deux cent milliards de dollars moom la ñuy defaree la ville de Diamniadio le TER c'est-à-dire euh, saxaar gi xam ne moom lañu ñu bëgg a defar Dakar ak Diass certains ñenn ñi nee nañu mille deux cent lañ koy defaree te man na koo weesu ñoom nag nee nañu huit cent la loolu yépp boo ko seetee. Nous defar ay autoroute yoo xam ni ku amul alal mënoo jaar ñu defar lay bi amul de ce fait ces infrastructures là qu'ils ont créées du pour population bi bâtiment ñu du fa du fa ku amul alal fa ces trains là le terre dont on parle ma ne la bio bi rek fonctionnaire bu ndaw bu ko bëgg a jël sa salaire dem ci aéroport nag wala nga fay dugg daal di maa ngi lay demander autorisation ndax war naa mën na li may wax du ci gudd parce que camarade bi doon wax léegi fa doon wax ci wàllu chemin de man may liggéey ci chemin de fer dugg ci teel nag ma amee 19 def ci 33 ans table yoo xamante ni

ñoom sa kër gi salaamaaleykum damaa bëgg a soxla ah foog nga que ni mu ñëwee la nga bañ ko soxla mu dellu la mu amoon ñëwaat yore sa doom la neexewul su boobaa nag war nga mën xam ne am na lu am loo xam ne ci départ bi moo forcé noonu la Macky Sall Sénégal da leen nax misaal boobu ñu def tax ñu wax ko mooy lii d'abord scandale yi dafa yàgg. te scandale économique balaa moo am sax fot scandale moral am maanaam nit ki ak jikkoom ak li muy defee xanaa xamul leen ne diggante Idriss ak Ablaye Wade bokk nañu ci nga xam ne dañoo tiitaloon Ablaye Wade ndax tiital laa ne tiital ko maanaam créé benn climat de méfiance xam nga nit ki am na yoo xam ne bu ñu la ay sos da ngay tiit scandale moral boobu ma gisal bokk na ci ko jiite ànd ci ak ki nga xam ne tey Maymouna Sallé ànd ci ak ay journaliste yow wàllu set ànd ci ak ñoom ñu bëri ñoo xam ne scandale moral a indi ko defoon rek pour que Ablaye ragal sax toog moom. naan bi ngay xool sa fay fay sa bulletin loolu nekk loo xam ne lu doy waar na ñoom dañoo yàgg a sos dañoo yàgg a wax a nag moo indi tey scandale économique ko indi tey ki jikko gën lay wane te jikko nag mooy feeñ ci jëf te li nga xam ne àngal nañ ko mënuñ koo jël fenn c'est parce que seen jikko boobu rafetul loolu mooy dëgg premier scandale économique bi nga xam ne moom laa bëggoon tàmbale mooy ca kër ga maanaam palais présidence de la république Macky Sall balaa ñu ko fal dafa taxaw mu ne mënuma gëm ne Sénégal budget bi nga xam ne ñu koy am palais ñu dem bee di méngale sax ci bopp ak Élysée ay tubaab yi ñooñu parce que xaalis bi ñuy pasal pasal dafa bari man Macky soo leen ma falee loolu dama koy wàññi waaye waxul dëgg mu gën a yees ci Abdoulaye Wade def Ablaye Wade ma li la leen lii Ablaye ba mu yoree nguur bi xam ne moom la doon utilisé présidence chiffre bi ci mujjee am mooy vingt huit milliards virgule six moom la Ablaye Wade def Macky Sall bi nga taxaw na nga xam ne dafa taxaw ngay Ablaye Wade mais li muy def baaxul mais su ma ñëwee daal di loolu ba mu ñëwee chiffre bi xam ne

daa nga dépensé 9,6 milliards bu Macky Sall mu ci 12,9 milliards ñaata la ko ëppee 3,4 milliards waaw kooku lan ñu digoon dañu bu ñëwee day wàññi loolu lu def da ko yokk kon loolu musiba scandale beneen scandale moo ko ne mooy scandale carte d'identité Abdoulaye dañ ko jox 24 milliards المدخر إلى إدارس مدخر إلى إدارس كتب ستة لفلسو ما يسميه ستة مليار المدخر إلى إدارس Jadi fatri ko ay intej ay magbirang bide ni son choli bay magsabay election days ndax ñaari nit bay waar yoo xam ne ku nekk bu fekkee am na luy daw ci yow war nga taxaw di xaar Macky Sall dem gaaw ndax loolu ba ci jiitu mooy dafa dem Fatick day nga xam ne yaakaar na ne mën na faa gañe opposition bi mu jox ñëpp seen daat dem Fouta yaakaar na mën na fa dal mu jox ñëpp seen daat Thiès yi Dakar ak feneen foo foo ne ne la fa doole mu tee seen daat loolu defe naa musiba weesu benn ñaar scandale boobu noonu bu ñu ko toppee am na lu toog ci soixante quinze mille ou cent vingt mille ñoo xam ne bind woon nañu dañoo def exprès jotuñu seen carte bokkuñ sax ci fichier bi boo maanaam gis sa kay wala am na lu manqué wala machine bi jum li gën a gaaw ci scénario gàllankoor yi mooy Macky Sall ci boppam waaye ba jour élection mu ne comme ñi nga xam ne dañu seen carte bëgg nañu woote damay jël décret ma teg ko ci kaw loi doy waar pour que nit ñi mën a woote seen ancien carte créé beneen carte bu ñuy wax bi moo électeur maanaam ñii doon bindu doon ay ndaw. seen i ñoom fa la ñuy wootee ñun xamul dara day sax parce que ki ko setal dëggatee triant wàllu Macky Sall dafa xam lu ñaaw la def parce que li ñuy wax si la dañ koy ñeneen parce que dëgg rek mooy nit koo xam ne da nga jël lu toll ni élection jot nga jël sa carte électeur gis ko gis ko góor naa yéen ñëpp jokkoo ngeen def loolu seen président de la République Macky Sall def na ko te ci sa benn xaalis def ne c'est un homme de biceps bi ci doole la day jaay doole bu ñu ñëwaatee ci kàddu yooyu noonu keroog seetlu ngeen am na ñu bëri ñoo xam ne day jël di jaarale yaa ngi fee nekkoo fa sa tur newul fee mu nga fële mu nga fee mu toppale parce que feeñal boobu lan mooy ba élection bi jeexee Macky Sall amul majorité quarante mille quarante huit pour cent la am su ma ñu mel ngeen ngeen kii maanaam ci càcc boobu yéen suñu borom mën na ko ne ko bu nekkoon élection présidentielle rek doo si dugg kon suñu borom am na ku mu àndal askan bi la am kon askan bi dañu am fula taxaw ku am sa doom sa jëkkër moom ku am sa jabar waxal moom ku am sa xarit waxal moom li defaroon combat wax na ko sax Macky Sall bu amee deuxième mandat c'est fini parce que dara doon ko ñaar man pare naa bu ko defee donc combat bi combat fulla la combat fayda la combat fit la ak combat boo xam ne ñëpp a ci war a taxaw si kanam la bu ñu jógee ci scénario bu gàttal ji dañuy dem ci scénario boo xam ne sos la scénario sos président Macky Sall def na tout Sénégal région bu nekk mu ne leen dinaa leen jox nangam ci milliard am na wala dafay conseil de ministre décentralisé xam nga loolu loolu bu ko ca théorisé mooy ministre mais bu ñëw rek amul programme parce que dañu waaye dama ne boo buggee doxal rek sa ñaari baat rek dinaa bu ma félicité sama collègue bi moom la amee Koungara félicité moom la ñu sànqale félicité Ali ak les jeunes yi nga xamante ne ñoo organisé. Senhor, eu coordinateur de l'Union pour le développement du Sénégal waaw xew-xew bi ñun dañoo jug taxawal benn union boo xamante ni day xeex te li xeex mooy lan Sénégal bu développé moo tax tey ñu woote li nga xamante ni mooy foire aux scandales UDS nag dafa nekk kuréel boo xamante ni dafa dajale ay ouvrier ak ay étudiants élèves pour la ñu suqal li nga xamante ni moo nekk jafe-jafe Sénégal loolu mooy xeexu UDS te moo war a tey te si biir scandale yooyu nag daa am loo xamante ne ñun dañ koo soulevé woon tey muy lan euh, li mel ni wàllu pétrole parce que gis nañu instant bi Sénégal coowul pétrole instant bi daa fees dell dell dell dell réew raison pour laquelle ñu dégg ay problème yoo xamante ni chaque fois président euh, Macky Sall mu ngi koy jéem a manigancé ak frère am loolu moo tax ñu taxawal tey jii di euh, conférence bi pour waxtaanee xew-xew loolu am si pétrole beneen bi mu nekk wàllu carte nationale d'identité biométrique yi parce que tamit euh, dañoo jàpp ni Sénégal Macky Sall régime dafa dépassé presque cinquante six milliards yoo xamante ni ceeru Sénégal jotuñu seen carte bu jëlee exemple si Marit yi nga xamante ni suñu dëkkandoo lan ñoom ils ont dépassé que vingt six milliards loo xamante ni ñëpp jot na seen i kon loolu faa ñu poser question jafe-jafe yooyu fan la Macky Sall def suñu xaalis loolu mooy xeex UDS leneen si topp mooy lan problème bi am si Khalifa Sall ndax gis nañu ne Macky Sall day day utiliser justice bi pour éliminer ses affaires ses affaires économiques euh, waaw donc raison pour laquelle ñun ñu jug pour xeex lool parce que tamit doon ay xale teewul tamit nga am vision boo xamante ne boo gisee lu jaadu si réew mi nga taxaw lii da koy xeex loolu wala tamit ñu boole ko si thème bi pour gars yi am si gën am see ay leeral yu gën a wóor. beneen bi nga xamante ne nag gis nañ ko mooy mooy la xamante ne le président Idriss Seck moom lay soulever pour l'instant nii muy lan Macky Sall comment comment il a fait pour exiger euh, monsieur Karim Wade génn ko dëkk bi ak li Ablaye Wade defal lépp lépp lépp lépp si lu baax tey bu nekkee président c'est grâce à Ablaye Wade tey mu jël doomam exilé ko Ablaye Wade kenn mënu koo naw kenn jox ko benn këdd ndax lan Macky Sall moo xoli politiquement ndax lan ak li ko Ablaye Wade defal lépp te ñu gis ne Idrissa Seck le président Idrissa Seck bu demee Porokhane loolu la soulevé naan daa sëñ lu façon insulte bu ne wax na ko kon loolu lépp dafa nekk loo xam ne tey moo nekk suñu xeex tey ñun waa UDS di la xamal nag ñun pare nañu pour lan Macky Sall instant bi ay xale yi xale yi nekk Thiès élèves yi étudiants yi jeunes yi pare nañu pour loo xamante ni suñu bakkan bii la si teg 2019 élection yi transparente lañ bëgg yu transparente amul ñu njaaj amul sàcc pare nan si loo xamante ni lépp loo xamante ni jaarul yoon ñu dinañ taxaw pour dévoiler ko waaw kandante kandante yi nag damaa bëgg may euh, initier sama mbokk sama sama euh, côté étudiants yi élèves yi ouvriers yi ñoom ñëpp ñu taxaw jéem ak fexe ba nga xamante ni bindoo gunu ñu bindu suñu kandante yi génnut ñu jëm koo jëli parce que Macky Sall ay carte moo ko mën a jëlee du leneen bon jafe-jafe yi mooy lan Euh, jafe-jafe mel lu mel ni wàllu pétrole ak gaz parce que ñun chaque jour dans les médias dans les journaux ñu ngi naan Sénégal pétrole feeñ na fi gaz bi feeñ na fi kon la raison pour laquelle ñun ñu poser les questions gaz ak ana pétrole bi la nekk ñun loolu lañu soxla ak li nga xamante ni dili mu ngi koy dil politique def di signé ay dossiers yoo xamante ni moom ak le président euh, euh, Aliou nu mu tëj sax Aliou Aliou Sall mi nga xamante ni mooy raxam mu jël ko favoriser ko problème yi nga xamante ni moo ñu dal lépp lépp lépp lépp lépp Sall ak famem parce que jël na pétrole bi mën monopoliser ko moom ak raxam ak jabaram loolu daal moo nekk suñu xeex UDS loolu lay xeex te loolu moo ñu ñëw te ensemble dañoo bëgg ñun ñëpp ñu xeex jël fi Macky Sall mu Sénégal mën a développé bon ndaw ñi ñi nga xamante ni ñoo ñoo bokk si union bi ñun ñëpp len la leen wax ñu ànd doon benn say di dóorandoo di yëkkatindoo di tegandoo loolu daal laa xam ne bu ñu ko defee Sénégal dina dem dina dem kanam UDS am ndam Sénégal am ndam le président Idriss Seck jël réew mi en waaw man la Aly Nguer Faye coordinateur des jeunes de Thiès Est donc scandale yi moom suñ ko wax fii la fanaan ba suba tey nag li ñu war a def mooy gërëm suñu ay xaral rak ñi nga xamante ne ñooy UDS ñëw bokk ci famille président Idrissa fas yéene ko fal ci 2019 donc dañuy sant suñu rak yi di leen gërëm di leen wax ni vraiment kontaan nañu mais scandale yi moom boo ci laal rek scandale pétrole scandale la carte d'identité scandale la enseigne enseignement bi scandale la santé scandale donc Sénégal féppay metti feebaru mag la foo lal mu ne wóoy mais tey li war a dax ñu war a taxaw fii di wax mooy dañoo gis ñu tekkiwul dara ay jaaykatu kaani démb ñoo xamante ne dañ daan jaay kaani marché Grand Thiès ku ci mel ni Ahmed mbay bu fal askan wi di jéem a tontu président Idrissa naan Ablaye Wade li mu wax amul bokkul PDS fal askan wi la bokk fal askan wi mooy ñi waroon askan wi ñi Thiès faloon Talla Sylla mi nga xam ne le président Idrissa Seck moo ko tey ca mairie ba ñooñu tey ñoo jug di wax ñooñu nag duñu leen tontu xam lañ leen tontu nañ ñu génneel benn certificat d'étude li may wax nii ci télé laa nekk su amul nañ ma indi sommation directeur la ca mairie bañ ma dàq ndax dama wax lan ndax dama ne Talla Sylla tu as trahi la président Idriss Seck ñu dàq ma ñoom ñu def ko fa directeur amul certificat d'étude kon kooku du ñu nawleem jeunes yi nag ñoo koy tontu. jeunes yi ñoo leen di tontu ñun dépassé nañ leen parce que ay responsable commune lañu koo xamante ni amoo bureau de vote mënuñu laa tontu kon ñoo ñooñu Idrissa du seen nawle waaye nag li ñu wax dëgg la borom gémmiñ guy naaj du wax jàmm. segam dañoo gis ni moom jege na nguur gi te xam nañ ni ñun duñu président Macky Sall ba picc mu jug ànd ak yow ñun ñu ñuy àndal mooy ñu seet démb ak bërki démb ci kaw loolu nag damay gërëm suñu sœur Rama Thiam parce que tey suñu bis bi su mënee daaru moom moo ci jàpp vraiment ci sama kàddu waa UDS ñi ngi gërëm suñu sœur Rama Thiam di gërëm waa jàmmagan yëpp di wax ne nañu jëli di d'identité yi ndax nag élection vote la dañuy wàññee te suñu wàññee nag bëgg nañ ca ngoon nga ñu taxaw fii génn président dox ak moom ba pare wasalaam merci